fi est koy tambalé dañuy dem feulé ca ministère des finances et du budget bi nga xamante kiko kii di Mamadou Mustapha, Ba ginnaw bu mu accordé ben interview journal bi di l'Écosse mi ngi dellu soit ci ay perspectives prometteuses yo xamante ci finance sénégalaise sur la situation des finances publiques ginnaw biñu voté loi des finances 2023 dit Mamadou Moustapha Ba ministre des finances et du budget Madame, accordel le journal du ñu et eh, l'Écosse muy journal économique wax situation finance publique au Sénégal bi nga xamante ni loi des finances 2023 amna amna résumer résumé ak ay points clés yo xamanteni définir nako jëm ci walu économie Sénégal batay suñu xolé ci contexte économique bi nga xamanteni sénégal Sénégal jàkkaarloog mom atum 2022 ki di Sénégal dafa jàkkaarloog ben défi économique ba xamanteni ni suñ ko noté amna ay raisons ak ay pression d'inflationniste yoo xamante ni na ci jëm ci walu hausse de prix ay prix mondiaux yo xamanteni ci si ay produits de base la ginnaw ben régime pluviométrique boo xamanteni dafa défavorable jëm ci ralentissement économique global bi nga xamanteni lan moko indi crise bi nga xamanteni mo moo ci guerre Ukraine ak ki nga xamanteni moy Russie bataille ci résilience économique yooyu malgré défi bi nga xamanteni Sénégal de nako mais nañu jàpp ni que daal di réewum Sénégal réussir na maintenir une croissance économique grâce à ben stratégie de riposte efficace bo xamanteni ñom tek nañ ko manam muy plan d'action prioritaire ñi dippee ko PAP maanaam ci ben plan bo xamanteni moy plan Sénégal émergent moy ay pays dëkk yo xamanteni dañu enregistrer croissance moyenne bo xamanteni mi ngi tollu ci 4 ginnaw lolu nak ben nag cours trois dernières années yi nga xamanteni moy année de crise manam placement parmi les pays les plus résilients d'Afrique muy ay perspectives yo xamanteni ni atum 2023 jël nañ ko muy ay perspectives économiques yo xamanteni ni resté na positif jëm ci walu croissance bi nga xamanteni dañ ko projeté won ci 4,1 batay suñu sukkandikoo ci ben inflammation bo xamanteni prévoir na environ 5 pour jëm ci walu baisse par rapport ak rapport bi nga xamanteni mo génn ci atum 2022 bobu ñu génn batay ci moyen terme yi am na ay perspectives moyen yo xamanteni cité waat na ci sukkandikoo lu gëna encourageant manam moy production bi nga xamanteni ñu ko doon xaar jëm ci wàllu hydrocarbure muy ay effets yoo xamante ni yu positif la ci ay secteurs yoo xamante ni bari na trop jëm ci wàllu économie mën nañ ci xool benn croissance de 9 pour cent bi nga xamante ni am nañ ci yaakaar atum 2029 ak 11 pour cent atum 2025 moom la ñu envisagé ci benn inflation boo xamante ni suñ ko maîtriser jëm ci wàllu consolidation consolidation budgétaire conforme aux ci critère de convergence ci euh, suñu sukkandikoo ci UMOA ak CEDEAO politique économique bi nga gouvernement bi engagé pour renforcer les plans de résilience finance et public mettre en œuvre une stratégie de considération budgétaire qui améliore mi ngi améliorer lepp lo xamanteni efficacité li nga état viser également à atteindre le taux de xamanteni pression fiscale de dina en ci ci atum ba tey budget 2024 bobu ñu ngi prévoir en 2024 manam atteindre li nga dina ci 7000 milliards ginnaw bi ñu joggé ci 6000 milliards at bi ñu génn muy 2023 donc nañ japp ni que dal atum 2024 euh, bi budget du Sénégal bëgg nañu atteindre li nga ci 7000 milliards mu refléter lepp lo xamante jëm na ci ay croissance significative par rapport ak 2012 bi nga xamante grande orientation budgétaire yi lenn rek la visé renforcer lepp lo xamante jëm na ci résilience jëm ci walu finance publique ak améliorer li nga xamante ni mooy souveraineté maanaam dette publique yi nga xamante ni war na rétablir marge budgétaire bi nga xamante ni suñ ko érodé dina jëm ci ay choc économique yu Madame dépenses publiques publique yi nga prévu gouvernement prévoir pour réduire progressivement ak ay subvention jëm ci walu énergie les ak 2025 rationaliser lepp ci ay dépenses courantes jëm ci walu concentration bi nga dina jëm ci ay efforts ou services sociaux de base ak souveraineté alimentaire bi nga équité territoriale bi ak promotion économique bi moko lal batay ci souveraineté alimentaire le Sénégal dina engagé pour diversifier les plans xamante dina moderniser. girdi l'idée di agriculture bi lii di élevage bi lii di pêche bi pour ñu atteindre une souveraineté boo xamante alimentaire lay doon bataille qui ci objectif global yooyu lii di gouvernement bi mi ngi woote mobilisation pour acteurs yëpp moo xam ci ban secteur économique en particulier ndaw yi la ñuy woo muy les jeunes pour ñu liggéey jëm ensemble ci ben émergence boo xamante ni soxal Sénégal bataille ci biir interview bobu bala mu koy jéxal mi ngi xamal ni que lii di résilience économique Sénégal malgré défis yi nga xamanteni c'est mondiaux mi ngi une perspective positive bi nga ni avenir bi dinañ ko am grâce à une politique budgétaire prudente et des efforts de diversification économique loolu daal la leen kii nga xamante Mamadou Moustapha Ba ministre des finances et du budget aw wax bi nga xamanteni ni journal économique bobu ñu dippee l'Ecos manam jëm ci walu li nga xamanteni moy mooy finance bu Sénégal ginnaw loi des finances biñ ko voté en 2023 Thank you.